li gën a fës ci xeetu yéenekaay yi wal fajri quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar ah, ci noonee la jiitoo ca Tiwaawoon rawatina ca champ de course yéenekaay bi ne fa la yëkkatee kàddoom moom Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine wal Moustarchidati yéenekaay ne Serigne Moustapha Sy xamle ne jot nañu dakkal corruption ah, ginne ci nguur gi maanaam ger ak naka su dul noonu jalgati alalu réew mi moom la ne jot na loole mun a doon les bonnes lippoon ah, ci réewum Sénégal moom Serigne Moustapha Sy ma ngay sàkku ci kilifa yi jiite réew mi ñu roy ci Léopold Sédar Senghor na mu doon doxale ca nguuram ak na mu doon jubale eh, ca nguuram noone la ko Serigne Moustapha Sy xamle leneen la mu xamal député yi ne jot nañu feggoog askan wi maanaam daal ñu gën a taxawu askan wi doon ay député du peuple eh, bañ a doon ay député président donc maanaam bañ di addu ci waawu njiitu réew mi eh, noonee la ko xam ne moom seriñ Moustapha si ma yëkkati yooyu la kaddu ca Tiwaawoon Walfadjri Quotidien dellu na ci génn àdduna professeur Omar Ndaw mi ñu ne dafa doon taxaw artistes yi maanaam doon béy waaram ci euh, géew caada ak cosaan ni ki démb la nelaw moom professeur Omar Ndaw mu ngi ci wàllu fajri euh, quotidien le populaire ci xëtam bu njëkk dellu soit na ca Tiwaawoon ne fa la addo moom sëñ Moustapha Sy dellu siwaat na xamle ne euh, du ki doon maanaam ki yor kaddu xalif général euh, de Tidiane maanaam daal yorul kaddu Serigne euh, Cheikh Tidiane si Al Maktoum noonu la ko Serigne Moustapha Sy xamle ne as ne askan wi nañu moytu ñi nga xamante ne ñu wër di naan Serigne Cheikh ama wax lii Serigne Cheikh ama wax lale nee na loolee na ko askan wi moytu ne bés dina am kii di Serigne Cheikh génn wax askan wi noonu la ko. le populaire samedi ci xëtam bu njëkk jox kàddu sëriñ euh, Mbaye Sy Mansour ma yëkkati kàddu ca euh, xam le ne njabootu si yëpp benn lañu amul benn jiixi jaaxa amul benn jafe-jafe amul kenn ku mun a euh, tas seen diggante maanaam kenn mënu leen a xar ñaar noonee la ko sëriñ Mbaye Sy Mansour xamle ci le populaire le populaire yu ñu xamal diggante Pape Ibrahima Diop grand sëriñ de Dakar ak Abdoulaye Makhtar Diop grand sëriñ de Dakar ñoom ñaar woon ca googule cérémonie officielle ca Tiwaawoon yéen cabinet ca la Pape Ibrahima Diop yëkkate béjjén euh, gu mu demas morso xonq cuur daal di ko joxoñ Abdoulaye Makhtar euh, Diop la populaire ne doonoon lu fësoon lool ca googule ndaje la turbine ci xëtam bu njëkk dellusiwaat na ci kaddu yam xamante ne moom la taataane Euh, ca euh, Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum mi doon xalifa général des Tidiane yéen cabinet euh, bu ñu sukkandikoo ca doom ja di Serigne Moustapha Sy mi xamle ne dina am musiba mbaba kumba gu wàcc ci Sénégal moom Serigne Moustapha Sy ne yooyu de kàddu mu ngi ko taataane ci Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum ci tribune réew mi quotidien xam le ne laata réewum Sénégal di jogaat faw musiba mbabakumba wàcc ci Sénégal maanaam musiba gu rëy a rëy noonu la ko réew mi quotidien xam le ne xibaar googee ñu ngi ko taataane Eh, ca eh, Serigne Moustapha Sy eh, Majigite maanaam wal mus maanaam wal mustachidin wal mustachidaati yéen cabinet Serigne Moustapha Sy xamle ne googule kaddu ma ko jëlee ca xalif général de Tidiane moom Serigne Cheikh moo xamle ne musiba mbaba kumba dina wàcc ci Sénégal réew mi quotidien dellusiwaat na ci kaddu ya tukkee ci Ahmed Khalifa Niass mi xamle ne du waxtaan ak ree dong nañuy màggale mawlud ne jot na daal mu doon xam goo xamante ne dañ koy wasaare réew mi quotidien dellu siwaat na ci eh, kër Cheikh Béthio Thioune ca Mermoz yéen cabinet lim bu takku ci ay cantakun ci ay doomi aadama ña nga foon ngir màggal gu eh, guddik eh, mawludul nabi réew mi quotidien ne géew politique bi yëngu na kat wadd mañu ne génnee ko kaso warta doon négociation Babacar Gueye bu PDS moo ko xamle ñaawlu doxalinu Serigne Mbacké Ndiaye le soleil ci xëtam bu njëkk dellusiwaat na ci guddik euh, mawludul nabi yéen cabinet kilifay diine yi seen kaddu benn la euh, jot nañoo yëkkati kaddu ne liggéey jot na bokk na ci bennoo ci askan wi ak jàppalante maanaam solidarité don lu ñuy sàkku euh, Serigne Abdoul si Al Amin mi yor kaddu xalif général des Tidianes di sàkku ci ndaw ñi ñu wuti xam-xam leneen la mu sàkku ci askan wi moo ne daal ñu amal penco mu yaatu waxtaane njàng meek njàngale mi ngir safara mun a am Serigne Abdoul Aziz Al Amin yokkaat ne la leen yitteel mooy samp ab musée islamique eh, goo xamante ne dina mun a dellu soit ci jaar-jaaru kilifa diine yi eh, beneen kilifa eh, xalif bu Medina Baye Serigne Cheikh Tidiane Serigne Cheikh Tidiane Ibrahima Niass ca Medina Baye la saxoo ci nguur gi ngir mu taxawu béykat yi ngir saafara mun a am ci seen jafe-jafe Abdoulaye Daouda Diallo jaru ngi ñu denk wàllu kaaraange biir réew mi ci Le Soleil xam le ne nguur gi la ko mooy moderniser maanaam gën taxawu këru diine ñu gën a méngoog jamono mu ci soleil yéene kaay vérité du jour xel amal gëstu bu yaatu ci ñaari dossiers yi nga xamante ne na gàllankoor Euh, diplomatie Sénégal yéen kaab li ñu xibaar ne ba ca jiitu di mbirum Amadi euh, Toumani Touré Amadou Toumani Touré mi doonoon jiitu réew doon daw làqu ci Sénégal daanaka ay atangi ni yéen bi ne yoon ma nga ci ay tànkam te moo ne de euh, moom Amadi Amadou Amadou Toumani Touré Sénégal la làqu ji beneen dossier di dossier bateau russe ma ñu teg loxo ci waxu Sénégal yéen bi gis ne ñaari dossier yooyu la mun na gàllankoor diplomatie Sénégal yéen bi vérité du jour suñu xibaar euh, ndajeb euh, maanaam xaaju guddi euh, Serigne Mbacke Ndiaye ma nga woon ca Palais ba jot na fa giseek njiitu réew mi Macky Sall yéen cabinet Serigne Mbacke Ndiaye moome benn tànkam yor na ko ca APR soreetul APR l'observateur ci xëtam bu njëkk dellu soit ci géew politique bi ak njiitu réew mi Macky Sall ne gàllankoor gi am ci eh, nguurub Sénégal yéen a ñu xibaar ne njiitu réew mi Macky Sall am jafe-jafe lool ngir jël eh, décision saay bu ko neexee jël dogal saay bu ko neexee la koy gàllankoor moo ne daal faw mu déglu waa parti socialiste wala waa AFP ñoo koy joxoñ fu muy teg tànkam l'observateur moo ñu ko yeggee ci eh, xëtam bu njëkk direct info direct la def dellu soit ci coowal dossier njiitu réew mi porté plainte ma clamé ci yoon Ngoné ndooy jëriñ nga woon ca nguurug alternance yéene cabinet loolee moo sooke Ngoné Ndoye jommi jomet ne di xew doon na lu ko jaaxal lool ne am na ci lu ko metti moom Ngoné Ndoye ay kàddoom ci euh, direct info Le Quotidien ci xëtam bu njëkk wutali Espagne yenn cabinet eh, fa lay daane dooleem depuis 1974 moom Gourambow yenn cabinet Gourambow moomule immigré la gu ne ca Espagne fekk baax ci Sénégal jaaxleem ci Le Quotidien la mu xamle moon ne daal ay doomam moom la soxnaam jaay ab tubaab maanaam ab espagnol daal jaay ñaari doomam yooyu le eh, kenn ka góor la toll ci fukki ak ñett ka ca des doon jigéen toll ci ñetti at ñoom ñaar la soxnaam jaay ab tubaab noonee la ko le quotidien xamle ci xëtam bu njëkk yéen a kabi di stade dellusiwaat na ci Ballon d'Or 2013 yéen a kabinet Cristiano Ronaldo moo jël euh, euh, maanaam raaya gi ni mel di Ballon d'Or 2013 raw na ca Ribéry raw ca itamit Messi yéen a kabi stade moo ñu ko yeggee waa sport ci xëtam bu njëkk dellusiwaat na ci googule Ballon d'Or 2013 euh, mi bari coow lool mi bari ànd ca ña ca des am ci xel mu tey yéen a kabinet Michel Platini la mu xamle moo xamoon ne daal jafe-jafe am na ci tànneefu Ballon d'Or 2013 yéen cabinet de ndax du complot goo xamante ne euh, dañ ko jagleel Bayern waa sport moo ñu te ci euh, xëtam bu njëkk ne bii du guleet bii mooy ñaareelu yoon Euh, Cristiano Ronaldo di jël ballon d'or euh, ci wàllu football suñu lamb dellu soit na ci lamb ji combat Eumeu Sène Modou Lo Balla Gaye 2 roi des arènes joxe na ci xalaatam ne googule komba jàpp na ne Eumeu Sène dafa xiif Modou def ko xiif maanaam def ko yàkkamte noonu la ko Balla Gaye xamle bu delu jëm ci euh, Modou Lo Balla Gaye gis ne modulo day kor maanaam buy bëri daal day kor ba mun a am bunt noonu la ko suñu lamb xamle ci xatam bu njëkk moom ñuy jeexale xetu yéen yéenekaay ci Walfadjri international